Maintenant, euh, le régime à lui tout seul n'est pas responsable complètement. Mhm. Ils sont responsables, donc il faut les changer. Mais il faut aussi une aide de pareil. Mhm. Euh, bëgg sa doom tekki parce que j'ai vu des parents quand même dire bi muy dem fii la jaar fii lañ talbu mhm. je crois que ñëpp bëgg seen doom tekki mais euh, waroo tax bàyyi sa doom mu dugg ci gaal yi di dem c'est vrai que sunu mbokku mool yi ñu dëkk ci tefes yi ñoom dañuy dem parce que xam nañ yoon bi te ñoom bu ñuy dem dinañ dem ba egg nit ñi doog ko yëg. Hmm. Euh, ñeneen ñi xamul yoon bi wala tàmmuñu géej xëy na ñoom ñoo ciy périr mais na ñu delloo si seen xel tuuti. Hmm. nañu xam ne tamit li ñuy wuti foofu amatu fa. nit ki da ngay conséquent mënoo wax Europe ak états dëkk yooyu baaxatul ah li fa nekk ci ay lobby nekk fa ci ay perversité nekk fa ci homosexualité nekk fa ci drogue nekk fa ci xeetu bon bon yëpp. ñu bëgg defar suñu réew ñuy bàyyi suñu ay xale ñuy génn di dem ci réew yooyu. waaw sauf xam ah? nga dañu lay non ñenn ñi xam lu ñu lay wax. na la le moins bon moo gën le pire. Mm. waaw mais man j'invite quand même la jeunesse à rester. Mm. je les invite à au moins garder le, le, le courage et la foi au moins jusqu'en 2024. je considère que après 2024 voilà peut-être ba Ousmane Sonko li mu leen dig ak li yaakaar bu ñu ko gisul su boobaa waxuma la sax dem mais nañ dajale ay gaal ñun ñëpp ñu ànd ci dem.